الحمد لله الكريم سيما على السخال بفرود وسمن سكرت لأخي لوطن به بينا أعوذ بالله بسم الله إنا ولي الله جرى جفا سرين بمكبي جارا مريتم بمكبي مام سيد إبراهيم لم فال باب المريدين mbok julit mbok talbay ñu ngi leen di nuyu di leen jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké ñaana ko fan bu gudd lool band ak wér waaye ñaana ko tamit xalif général de bay Fall di ziar sama mbokku tiijaan yi xaadir yi ni ña seen yi waa ceena bax maa ngi leen di nuyu di leen ziare waaye xel dem ci mbokku taal ba yi tëdd ci hôpitaux yi ñu ñaan saa bi mu fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen sago naka noonu ñu koy ñaanalee mbokku taal ba yi caabi féete ginnaaw ñaan saa borom bi mu àttaleen ci yërmandeem ba ñu delluwaat ci seen njaboot di ziare sama sëriñ sama papa sama xarit suñ Cheikh Bintu Fall borom Ndar Fall ma ko jaar bu baax a baax Fall yaaram di ko ñaan saa borom bi mu yàggal ko waaye tamit di jaar sama sëriñ sama wasila sëriñ Saali mu Cheikh Ibrahima Fall Njànd ñaana ko fan bu gudd lool bu ànd ak wér di jaare sama goro sama papa papa du Diagne di jaare sama borom kër bàyyiwuma kenn képp koo xamante ne nii yaa ngi bége soxna Maram rek maa ngi lay nuyu di la ziar waaye amaan mbégte ak contentement tewaat fii ci VFtv la chaîne des valeurs dédiée aux femmes seen émission bii di émission cant gi Euh, xam naa ne gën ngeen maa gis ci seeni suufu écran waaye dañoo génnoon euh, nekk ñu woon njaareem loolu moo taxoon euh, ñu gëj a gi génn seen suufu ecran waaye nee naa leen cant gi de retour nee naa leen fi mu nekk nii dara du yomb nee naa leen ak VF TV fii la lëpp di xewe mbuyu mi fii lay xoyam xoyamee may bégg bu baax a baax sama caméraman bi sama papa sama papa bi immature bi papa ba di ko ñaanal saa borom bi mu sàmm ko ah yàggal ko waral ko te boole ko ci milliardaire Serigne Touba yi waaye di ziar suñu PDG Tata Xaar Fay jigéen ju mën góor kenn du ci mim réew ma lay nuyu bu baax a baax di la jaare ay ca mbokk yi mu ngi noonu kon nag eh, yéen gi ngi en direct VF TV seen émission bi di émission cant gi bu ko defee rek damay daal di ànd ak sama caméraman mu dugalal ma première son bi Papa Wade dinaa la wax ki mu doon nga xam ni ki lay jaragam dinaa la wax ki xam ni ki lay jaragam dinaa moo tax sunu xel a dal moo te sunu fita dem nga na mu gi yaa ko waral naa la wax ki mu doon nga xam ne fi yéen nangu leen gëm leen mooy ki ñu moom naa la wax ki mu doon nga xam ne asri la dallaayi fi yadi naa la wax ki mu doon nga xam ne min malikin xadabil ali waati Penda Bay Karim Bamba du maasum walaay fore du maasum bilaay buur ak ki kàngam walaay est-ce que Bamba te xëy di jàngal walaay nit ba mu mokkal bilaay te du ko bindal walaay sama mbir walaay maa bëgg Bamba man jéemu maa roy walaay te jéemu maa roy bilaay damay fexe bay walaay sa toole Bamba jox naa la sama mbir walaay jëbbal la sama mbir bilaay saytul ma sama mbir walaay maa bëgg Bamba yàlla gërëm na walaay yeneen gërëm na bilaay ku ne gërëm na bilaay ay ca macha allah Papa Wade mo nekkon nonu ci réseau bi ma ci profito wala bu baax baax di ci nuru sama jëwrin sama xarit Bamba Touba borom daaru xafoor laxasaay macha allah muy talibé borom dar khafour bëgg borom dar khafour lol ba yemalaw ko dara mako ñaan bu baax baax sa borom bi yagal ko wërël ko mom xale boobu nga xamné ne macha allah dafa am jom waye nango liggéey borom la xassay yu naay si foofu si Touba macha allah ay ayca mu ngi noonu papa sama caméraman bi papa ay ayca mu ngi noonu <laughs> papa Wade moo génn noonu ci régie bi kon bu ko defee rek euh, damay daal di ànd ak euh, ki nekk ci régie bi di sama caméraman mu dugalal ma son bi di pap Mboup son bi nga xam ne macha allah ne naa la moo lëmbee dëkk bi cokkaas pap cokkaas nga gars yi ayca. cookaas nga ma fi nga cookaas ma fële nga cookaas ma ci sëñ bi ma wuy si la doole cookaas nga ma fi ma bañ nga cookaas ma fële ma bañ nga cookaas ma ci sëñ bi ma wuy si la doole cookaas nga ma fi nga cookaas ma fële nga cookaas ma ci sëñ bi ma wuy si la doole cookaas nga ma fi ma bañ nga cookaas ma fële ma bañ nga cookaas ma ci sëñ bi ma wuy si la doole Serigne Saliou de laa ni di ma ci woo jarul joona kelee day doy na ca nag ngir ma wuy si la gaaw ma fii ma bañ nga ma fale ma bañ nga ma ci sëñ ma wuy si doole lu dul moom du ca masla na ma ca du ma ca xoos examen ci Serigne Saliou du ma ci hors sujet jokkaas ma fii ma bañ nga ma fale ma bañ boo faree ka sensible ci man yow mi ko turbe foo ma woo ma wuy si la fa jeexal. ma fii ma bañ. ma bañ. ma ci sëñ bi ma wuy si la doole. ndokk ba ku ko jox man mu jox mënul nga jox ko nag te mënul mu jox la lu la jomb. jokkaas nga ma fii ma bañ. ma bañ. la foo ko woo yaa man yaa ëpp doole. sama waa ji du ma rombul xalaat di ko xalaat di ko tëkkalee. yaa man yaa ëpp doole. ma rombul xalaat di ko dëggal tu so a mesa Pape Mboup euh, Zikroulah Pape Mboup mu Serigne Saliou Cokkaas moo nekk noonu ci régie bi waaye may profité waal bu baax a baax di ko may képp koo xam ne saalixaat nga rek nee naa leen nag Pape Mboup Cokkaas na leen yéen saalixaat yi ayca bu mu leen ko mënal da ngeen fayu bu baax a baax macha allah kenn du moom ci mim réew Pape Mboup mu Serigne Saliou yow nee naa la boo yëngoo boo woyee rek dëkk bi yëngu barki Serigne Saliou di la ñaanal sa bi mu sàmm la sama mag ji sama xarit bi wëral la te wëral baat bi te bayal ak sa soxna te boral la ci milliardé di Serigne Saliou ndax nag macha allah yow nee la da nga a dundu da nga wara yag ndax lo fi gëna yag muy gëna neex kon pap yag fi macha allah mu ngi nonu waye ma ci ziar bu baax baax sama xarit sama doomu nday salihat bi nee bintu mu Serigne Saliou waye soxna zainab mu Serigne Saliou ñooñ nga xamante ni dañu dañoo Serigne Saliou waye nee la di ziare ndawi Serigne Saliou yi ndax kenn du ñoom macha allah di jaare képp koo xamante ni rek yaa ngi bëgge Serigne Saliou képp koo xamante ni saalixaat nga wala saalixiina maa ngi leen nuyu di la jaare ci euh, son Pape Mboup di son cokkaas macha allah. ayca bu ko defee kon dañoo passé noonu ki nga xamante ne nii moo di Pape Mboup papa danga may daal di gunge ma daal di doxantu ndànk daal di dem seetu Mouhamed Niang. murit bu jébbaloo war a xam. gëstul ba gis Bàmba la mu woote mokkal te tare yàlla mooy seyte murit bu jébbaloo war a xam gëstul ba gis Bàmba la mu woote mokkal te tare yàlla mooy seyte gis la woote gaa ñépp teew ku fi jàng indi yëgal naa la yàlla ma digal maw yoon wi te Cheikh Ibra misaal la aboori baraw na xam na boroomam yàlla faale Bamba ko jàlle te yaay seddale mbool ya ca biir yaa ba jël fa marchandise ya yaa dem ba fa moom ba borom marchandise ba safar safar safar gi ñëw na bégal bégal bégal murit bi raw nga jëfal jëfal jëfal ngërëm li yees na yegal yegal yegal du jeexal murit laa bëgg murit saadix lay doon murit jàmm la moom murit rekk ma neex nga tànnoon saber gi nga tànnoon keroog ruu yi nangoon yeneen jóg na la moom yëgën yow rek moom murit laa a doon murit laa bëgg a murit saber lay doon murit jàmm la moom murit rek ma neex bale gaay jébbaloo bale gaay jébbaloo waxal yaa ko waxoon dëggal gëm nga doroon sa mbir leer na fa moom

jikkoom yaa murit laa bëgga doon murit laa bëgga doon sama xol bi daa sax ci bànneex jàmm rek la yëgatuma neex ndax neexam bi ci borom Tuuba dëgg-dëgg bànneexay waa ji jàmm rek la sàppe su li suur suurawu xiif ci borom Tuuba yàlla rek a dul sàlli saf ji jàmm rek la fitna rawul gis lu dul moom ci borom Tuuba sama peru bët yi ki lay xool ëpp na ma ndey ëpp na ma bàyyi di jox na ma ndey ju bàyyi jàmm rekk la kufuru mënul seede ji waayi di borom Tuuba sukuru de mooy sax ci lay laay jàmm rekk la ku ko amagul wëril bi di borom Tuuba benn la fi yàlla defar fii acca macha allah Mouhamed Niang Serigne Saliou moo nekkoon noonu nee naa la moom it rëkkati na ca lii kenn xamut lu mu doon barki yonent bi ci koo jógee rek yaakaar ne kooku moo gën a neex la macha allah waaye ma leen di ñaan na rek saa borom may leen kàttan ak mën-mën te gën a wëral baat yi ba saa su nekk rek ngeen koy defee noonu di bégal euh, gars yi macha allah ndax nee la fu leen waxee rek ñëpp beeg ñëpp ñëpp kontaan macha allah te du leen bàyyi kenn ndax nee naa jullit rek di ngeen ko tudd ci son bu leen euh, way ndax du leen ràññale kii tiijaan la kii xaadar la wala kii murit waa kii laayan la macha allah seen jàmm yal na yàgg ay ca mu ngi noonu ma Mouhamed ñaam mu Serigne Saliou moo gi nekkoon noonu ci réseau bi may profité waale bu baax a baax di nuyu sama jëwrin sama xarit Serigne Saliou Touré jëwriñu daayira Bamba Yàlla moom day bëgg Mohamed ñaa bu baax a baax a baax waaye di jaare tamit waa daayira Bamba Yàlla bi yëpp di jaare jëwriñ ju jigéen ja soxna Ami Fay di jaare ñëpp rek bàyyiwuma kenn képp ku bokk ci daara ji rek maa ngi lay bëgg di la jox sa wàcc waaye te di ñaan sa borom bi mu defal ñu jàmm ay ca mu ngi noonu papa comme que Mohamed ñaa moo noonu danga may daal di gunge ma dem seeti Tawfeex Mbaay lastu kabin ku nit ji dameel fu ñuuk dameel na jalaw dameel samba yaaya faal isa ji fati penna lastu kabin ngoone njeey seex rafaale ci àll bëgg a tagg seex rafaal babul muridina faal yaa aboori dama ne ci àll bëgg a tagg seex rafaal seex ibra faal faal yaa aboori jaal yoonu bu doon wii fi kot ku ko amul du connecté cey maam lamp faal neta bi Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal yaay amorija réseau bëggul occupé laa Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal muridina far yaay amorija indicatif ba mu am mooy jëfe ndigal Faal ay numéro lamp ba Seex Rafaal damaa ne ci àll bëgg a dagg Seex Rafaal Seex Ibra Faal muridina Faal yaay Abu Rijaal numérom kuñ ca woo jëfe ndigal ngay wuyoo bépp tere nga coupé ko ngir maam Seex Rafaal damaa ne ci àll bëgg a dagg Seex Rafaal Cheikh Ibra Fall muridina fal yaa burijaal kii yaral mi dama jësu bu murid ba faal nga xam ni kii mooy kan foore lamp faale leele damaane ci àll bëgg a tagg Cheikh na Fall Cheikh Ibra Fall muridina fal yaa burijaal sëriñ Saali woo xam sunu baay Cheikh Ibra Fall waxoon bëgg a dagg Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal muridina fal ya abu ni ma bëgg làmp ni waa këram day maam Seex Ibra Faal kuy bàyyi fal day bari ngërëm ngir maam Seex Ibra Faal bëgg làmp ni waa këram maami soxna Awa Faal kuy bàyyi fal day bari ngërëm soxna Awa Baay Faal day rafet te set jëyi maam Cheikh Rafaal dafay bëgg ndam day ragal ndeefet ngir maam Cheikh Rafaal bëgg lam fak ni waa këram jëyi maam Cheikh Faal day bëri ngërëm ngir maam Cheikh Rafaal maami Cheikh Ibra Fall yow yaa di gor ci maam Cheikh Ibra Fall ci maam Cheikh Ibra Fall maami sëriñ Modu Aminta Fall ñaari bàyyi Fall yow la ni bége ci maam Cheikh Ibra Fall ci maam Cheikh Ibra Fall sëriñ Cheikh jëmb dem gi sëñ Modou Mbenda yàgg fee damay Cheikh Rafal ca imam Cheikh Rafal maa bëgg man maami Cheikh ndigal kuy bàyyi fal day jëfee ndigal ngir maam Cheikh Rafal ca imam macha allah Tawfekh Mbaye maam Cheikh Rafal moo nekkoon noonu ci réseau bi ma ci nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne nii rek taalibe maam Cheikh Fall nga waaye di nuyu bu baax a baax jantal Baye Fall sama mag sama càmmiñ sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di jaare képp koo xamante ne nii rek bokk nga ci njabootug maam Cheikh yi di jaare Serigne Bada Fall fee ca Thiès di ko ñaanal saa borom bi mu yàggal ko waaye di jaare ki nga xamante ne ni mooy sëñ Moudou faal eh, mu Serigne Cheikh Bintou Fall moom tamit xarit la mag la macha allah ma ko ñaanal saa borom bi mu yàggal ko waral ko. ay ca mu ngi noonu Tawfekh mbaay moo nekkoon ci régie bi bu ko defee rek damay daal di ànd ak ki nga xamante ni moo féete ci régie bi mu daal di may gunge ma daal dem seeti soxna Abi Ndiaye macha allah soxna Abdi Ndiaye mu Serigne Saliou moo ne woon noonu ci réseau bi di sama mag sama xarit sama idole ma ko nuyu bu baax baax di ko ziare te ñaan saa bi mu yàggal ko wëral ko waaye tamit di ñaan saa borom bi lépp lu mën a ma ci yoonu rek yal na jàppande ci barkeb Serigne Saliou mi mu yaakaar ay ca mbokk yi mu ngi noonu waaye nee naa la képp koo xamante ne nii rek bëgg nga loo publicité wala nga bëgg couverture. boo ñëwee ci VF TV rek lépp fii lay baaxe nee naa la fii la lépp di xewe nee la ak VF TV rek gars yi bàyyi nañ ko xel a a VEF TV service commercial bi mu ngi noonu 77 232 13 43 77 232 13 43 wala nga woote ci 77 742 41 96 77 742 724 742 41 96 da maa ngi jégalu bu ci numéro bi 77 la 742 41 96 waaye nee naa la du ma sama xarit sama sama góor sama càmmiñ ki nga xamante ne nee naa la du jóg ci di ko ñaanal di ko gërëm di ko sant barke Serigne Saliou ndax xarit la mag la càmmiñ la waaye nee naa la bëgg soxna mareem lool barke Serigne Touba. nee naa la laxasaay bu ma sor lekk moo fa jaar muy Baye Ablaye Diop xasaayit borom kennal borom Touba culture nee naa la ki nga xamante ne macha allah borom laxasaay yu baax yi. ay ca daw leen ngeen seeti ko Baye Abdoulaye Diop nee naa leen nit ñi dañuy safar di safar ci li nga xamante ne ni mooy ay xéwal waaye moom ci laxasaay lay sax lay safar ndax loo def rek ci moom am laxasaay laxasaay yaa ngi fa disponible na avec des avec des prix abordables macha allah lépp loo yor rek boo fa demee di nga am laxasaay ay ca nee naa la pour nga dem ci Baye Abdoulaye Diop xasaayit nag soriwul te nee naa tamit jafewul boo demee ba kër sëñ bay Sarr rek marché bi ndaw foo laajte kër sëñ Lamine Sène dinañ la woon kër sëñ Abdoulaye Diop xasaayit wala 182 03 75 78 182 03 75 Baab laa Diop xasaayit borom kennal borom Touba Couture may ziar bu baax a baax di jaa jaajëfal képp koo xamante ne nii yaa ngi doon ànd ak ak eh, télé bi di VFtv waaye képp koo xamante ne nii rek. yaa ngi bàyyi xel soxna Marème Saliou képp koo xamante ne nii yaa ngi bàyyi xel émission bii di émission cant gi ziar bu baax a baax sama man bi papa ba di ko ñaana sa bi mu yàggal ko sama papa la sama xarit la macha allah di béggee l'équipe type de la FTV bi yëpp bàyyiwuma kenn ay ca nee leen jox leen digg daje euh, mercredi incha allah ci yeneen ni émission ak cant gi jërë ngeen jëf